Siidee muy Momo Dieng muy muy nan la nan la tuddee si sama booy yëpp yëpp daal en tout cas. Ah. samay booy la ñu en tout cas li mu wax xam nga mooy lan. essayer uh-huh. essayer d'être comme le grand le plus grand des grands Youssou Ndour parce que ku may si moom na ngay dem man uh-huh. mbagg uh-huh. sa mbagg nii lay def ba demee nii rek kalaaj mais comme ni mu réew mi ku mu ci topp leen seen grand. ku ci toppal grand bi ñun en tout cas pare nañu. Euh, na leen tudd arena. Mhm. léegi xam nga la ñuy xaar. Mhm. ñoo ngi si grand stade bi la ñuy xool nan la ñuy jëlee fan si woykat yëpp dugal leen foofu ñaanal leen ba pare doogay bàyyi mel. ni nga ni nga mënee dëkk ci réew mi yow. Gak ada kecil dekat biar aja. Tak pernah baik. Baiklah. Tak pernah memperlihatkan. Tak pernah memperlihatkan. Tak pernah